شيخنا ووسيلتنا وقرة عيننا شيخ احمد بن خادم الرسول بكي غناو ني سانتي يالا بور بي سبحانه وتعالى جولي تي يونتيم بو تيد بي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نيوغي لين دي نيو دي لين زياره دي لين بالو اخ دي لين بال ني يان يالا سون بوروم سبحانه وتعالى مو بوليه ني جيغل دي جيتال تي نيو بوبو اك زيار بي سيرين توبا شيخ محمد المنتخب مكه xalif général kullu murid di ko ñaanal yàlla mu yàggal ko fi lool te wéral ko ba lépp lu mu yéenee liggéeyal Serigne Touba ma eggali ko ànd ko mboolem jullit yëpp ak mboolem taalibe yëpp. di leen ndokkeel bu baax tamit ci weer wu tedd wi ñu nekk di weeru rajab weer wu làmboo ay ngëneel waaye weer wu làmboo ñaari xew-xewu lislaam yu mag ndax ci la yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam defe woon rañaan bi ci weer yu ñu nekk ci la jullee juróom wàcc ci xeetu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam waaye ci la sunu sëriñ bu mag ba di sëriñ Fàllu Mbàkke gane jamono kon ñoo ngi leen ci ndokkeel bu baax ñoo ngi am yéene delsiwaat ak yéen ci seen jotaay bii di ahlu xasida ngeen baaxoo koo am alxames bu jot fii ci seen site internet Mouride Info waaye baaxoo ko ànd ak seen mbokkum moo Maodo Thiaré tey ñu fas yéene ànd ak yéen ci benn ci xasiday Serigne Touba yi euh, xasida bu mag waaye xasida bu mag bi bu làmboo ay ngëneel te bëri ay jagle muy xasida ak nuuru daarayni fi xidmatil xaami anil arini tey moom lañ fas yéene ànd ak yéen incha allah moom nag dafa bokk ci xasiiday ginnaaw géej gi euh, ndax sëriñ bi mi ko taalifee njaareem ca buqaatul mubaarak te xasiiday ginnaaw géej gi nag sëriñ bi am na lim ci waxoon ndax dana woon xasida yooyu de ñoo gën a kawe ci lu dul alquranul karim ak xaddis mu ne woon képp koo xamante ne yaa ngi koy jàng lépp loo ci fas suñ borom subhanahu wa dem dana la ko defal xasida ak nooru daare ni ci xasida yooyu la bokk moom nag xasida ak julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam la ndax xam ngeen ne xasida yi dafa bari ay xeeti xasida am na yoo xam ne dafa jëm ci suñ boroom sëriñ bi di ci sant yàlla ak di ko jéggalu ak di ñaan yàlla am na ci yoo xam ne ay xasiday salawaat lañ am ci yoo xam ne ay xasaay du tagg lañ nuru daaray ni bii nag xasida julli ci yonante bi la mu mel ni sëriñ bi bu ñu seetloo xasiday salawaat yu bëri euh, daf ko daan tàmbalee ci aaya ba sun boroom di wax ci alquran ne moom ak i malaaykaam dañuy julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam daal di digal ñi nga xam ne ñoo ko gëm ñuy julli ci moom lu mel ni jaalibatul maraaxib danañ fa gis inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi ba ca mafatihul bisri waaye xasida gii di nuuru daare ni dafa mel ni sëriñ bi andiwu ko fi waaye maanaam aaya bi moom la andi ci xasida gi te buñ demee ci kanam dina ci feeñ incha allah waaye mu mel ni itam xasiday salawaat yëpp sëriñ bi mu ngi leen taalif ci diggante euh, weeru rajab ba ci weeru tabaski muy weer wi ñu nekk tabaski ndax dafa waxoon ne min rajabin ila intihaasi lxijja lahu alayya salawaatu lxujja lahu salaati wa salaami min rajab li zil xijjati nicmal muntajab li zil xijjati nicmal muntajab min ni salaati ala kon foofu yëpp sëñ bi dafay xamle ne li ko tàmbalee rajab te muy weer wi ñu nekk tabaski juróom benn weer yooyu ci lay julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam dafa mel ni sax ci diggante rajab ak saabaan ci la sëriñ bi way xasiida gi ndax ñaari weer yooyu bari na lool lu leen sëriñ bi andi bokk na ci li mu wax ci biir ne washhad bi shukrin lakka fil fardi rajab wa fi siwaahu yaa mu diiman lil ajab yàlla nanga ma seeral sama cant ci rajabul fard rajabul fard nag lu tax ñu koy wax mooy dafa am ñeenti weer ci fukki weer yeeg ñaar yi dafa am ñeenti weer yoo xam ne suñu borom moo leen tànn warmal leen ñetti weer yëpp nag dañoo sasaloo ba mu des rajab rajab nag wéet moo tax ñuy wax rajabul fard naka noonu it sanbaan sëriñ bi andi na ko lu bari ci biir xasida gi bokk na ci li muy wax ne nabaxtani tanbiha shakirin alim baaxin ilaya nafaha xaada bi ulum soo jëlee siinug Shakir ak ayinug alim ak baawug baaxi ak alifug ilayya ak nuunug nafaa moo lay jox sanbaan ba tey bayit bii di ushkur wa allim wal tubaarik ajibi wanfa wa ma yasuu ala ajibi boo jëlee siinug ushkur ak ayinug allim ak baawug wal tubaarik ak alifug ajibi ak nuunug wanfa moo lay jox saxbaan ba tey bayit bii di wali yaqud shukran wa ilman badaa wa ajra nafin taaridan man xadaa boo jëlee siinuk shukran ak aynuk ilman ak baak badaa ak alifuk ajra ak nuunuk nafa moo lay jox saxbaan saraxtu baaniyan bina a zikri wajaxal mukuusi laka xayra shukri sëriñ bi dafa wax foofu ne tabax naa tabaxu zikar tabax naa tabaxu zikar zikar mooy tudd yàlla waaye soo jëlee bayit bi siinuk sarantu ak ayinuk sarantu ak baa'uk binaayi ak nuunuk ak baa'uk baaniyan ak nuunuk binaayi moo lay jox sanbaan ba tey laka alaya shukru min sanbaana wa qabluhu wa baxduhu qurbaana foofu moom andi na fi weeru sanbaan bi nga xamante ne ci ñaari weer yooyu la la ko taalif te mooy diggante rajab ak sanbaan mooy ndeyu koor ak baraxlu sëriñ bi wax naa la léegi ne la xasiida yu bëri ci yum taalif day andi euh, aayab inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabii waaye fii nag maxnam laaya bi ci boppam moom la sëriñ bi indi loolu bokk na ci ay jagley xasida gi di nuuru daare ni ndax ma ngi ko tàmbalee ci alhamdulillahi alladi yusalli ala nabiyil muntaxal musalli maa ngi sant yàlla sun boroom mi nga xam ne day julli ci yonente bi nga xam ne mooy jullikat ba kon soo jàngee bayit bi donte jànguloo aaya ba te xam li bayit bi tekki da ngay xam ne yàlla kat moom day julli ci yonante bi alhamdulilahi lazi yusalli mooy tolloog la yàlla di wax ci alquran ne inna allaaha moo tolloog inna allaaha ja boo jàllee tuuti ci xasida gi da nga gis sëriñ bi di wax ne waa amaral amlaaka aidan bi sala alayhi zaidan bi zalika ula yàlla kat moom moo digal malaayika yi ñuy julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy tollook wa malaikatahu xam nga aaya bi dafa tàmbalee ci inna allaha wa malaikatahu ba tey nga jël bayit bii di summa ilayna wajjahal xitaaba takarruman wa anfusan ataaba mooy tolloog la yàlla di wax ci aaya ba ne yaa ayyuhal lazina amanu yaa ayyuhal lazina amanu sallu alayhi wala yaa ayyuhal amanu nga jël bayit bii yaa amiran bi an yaa amiran bi an nusalliya ala sayidina muhammadin baabil ula ma yow yàlla kat yaa ñu digal ñuy julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam mooy tolloog la yàlla di wax ci alquranul karim ci aaya ba ne sallu alayhi kon gis nga ne tàmbali maab xasida bi rek sëriñ bi andi na fi maanaam aaya boobu nga xam ne ci la suñu borom di diglewee eh, ñuy julli ci yonente bi gis nga ca jalibatul maraaxib ak ca mafatihul bisri sa bu ande aya bi da cey tek labbayka rabbi wa sa'dayka fi min ko remplacer bayit bi mu wax ne fa khumtu xaa'ilan ma amtisali amru jamilin jalla an misali may tolok labbaykal rabbi wa sa'dayka ba tey sëriñ bi andina ci itam hadith bo xamne yaronte bi sallallahu taala alayhi wa sallam day xamle ci njëriñal julli ci mom mooy fi yonante bi waxee ne man salla alayhi salaatan sallallahu biha asra marat képp koo xamante ne julli nga ci moom benn yoon yàlla suñ boroom dana julli ci yow fukki yoon waaye da ca yem ndax dalay jéggal fukki ñaawteef yëkkatil la fukki darajaat bindal la fukki jëf yu rafet moom la Serigne Touba di wax ci biir xasida gi ne yaa man yaquudu li musallin marra alayhi asran xattu niiru birra yonent bi wax ne képp koo xam ne julli nga ci moom fukki yoon suñ borom day julli ci yow téeméeri yoon moom la sëriñ bi andi ci biir xas ba tey wax ne yaa man yuwassilu lisi asrin mi a bi jaahihi yaa man xama an sayi a ba tey yonent bi wax ne képp koo xamante ne julli nga ci moom téeméeri yoon suñ borom day julli ci yow fukki yoon suñ borom day julli ci yow junne yoon ku julli ci moom téeméeri yoon yàlla julli ci yow junni yoon moom lay wax ne wa huwa allazi su nixma safiun man alayhi mi ata salaxta waa alfan tafuuxu fi ata mu ne nag képp koo xamante ne julli nga ci moom junne yoon euh, du faatu mukk lu dul suñu boroom subhanahu wa taala def ko bégal ci aljanna kon képp koo xamante ne julli nga ci yonente bi lu toll ci junne yoon yonente bi nee na aljanna rek mooy nekk sa fay waaye sëriñ bi mi ngi ko andi ci bayit bu muy wax wax wallazi liman alayhi alfa sallal muna wa fil jinaani yulfa kon xadis bi foofu lay su ko defee foofu liñ ciy jàngee mooy xasida da lay jàngal ndax aaya bu njëkk bi dañ ciy xamee wax sunu borom subhaanahu wa laa fii tamit daf lay jàngal xadiisu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam fekk sëriñ bi nag ñaanoon na sunu borom subhaanahu wa taala ngir xasida yi di jàngale di xamle dafa waxoon ne xabliya kaw na xallami muallima taalima man lak yaxuudul ulama waxoon ne it xasida yi dañuy jegeel nit ñi mboolem xam-xam yu sori woon te jafe woon mooy li muy wax ne yuqarribu taalifil uluma allati naat ila nnaasi mus anhum fu aadi bihi afa kon mbindum Sëriñ Tuubaa day jàngal nit ki xasida nuuru daare ni bokk na ci ay jaglem mooy ni mu toll ni mu toll ci rëyaay nga xam ne bayit yi ëpp na lu ëpp na junne bayit te sëriñ bi xasida gum xasida yu bind ci ginnaaw géej gi yu bëri daanaka def koy tënk ci fukki bayit ak ñaar jëm kaw waaye xasida gi nag toll na ci 1370 bayit maanaam junne bayit ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukki bayit kon loolu bokk na ci ay jagle moom xasida gi di nuuru daaree ni bi it lim ci julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam bëri na lool ndax toll na ci 192 salawaat 192 mooy téeméer ak juróom ñeent fukk ak ñaar yoo xamante ne def na ko ci julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam nga xam ne bayit yum julli ci yonente bi rek soo ko faboon ber ko jël xasid ak muxaddamaatul amdah teg leen lim julli ci yonente bi ci xasid ak nuru daare ni day gën a euh, rëy xasid ak am amdah kon loolu day wane ne sëriñ bi julli na ci moom ay yoon yu bëree bëree bari te julli ci yonente bi làmboo na ay ngëneel yu rëy rëy yoo xamante ne euh, lu mat a def la julli bu ci nekk nag ci julli yooyu sëriñ bi nee na gàcceel na téere bu ñuy wax dalaa ilul xayraat bi nga xamante ne imaam Jazuli moo ko def nga xamante ne lu jiitu Serigne Touba téere boobu mooy téere bi gënoon a yéeme ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la Serigne bi di wax ci biir xasida gi ne salli salaatan tajmahul xayraati muxjilatun dalailul xayraati yàlla na nga julli ci yonent bi julli goo xam ne dafay dajale mbooleem yiw yi waaye itam na gàcceel euh, dalailul xayraat nga xamante ne imaam Jazuli moo ko def loolu bokk na ci njëriñu xasida gi mu bari lool tamit loo xam ne sëriñ bi ñaan na ko ci jëme ko ci ki nga xam ne mooy jàng xasida gi moom nuuru daare ni da gis muy wax ne salli salaatan la tazaalu saatia anwaaruha kulla xijaabin xaatia ma salaamin nairin yu taxiru xalbal musalli wa bihi yu maxiru yow yàlla suñu boroom na nga julli ci yonent bi julli koo xam ne du dañ mukk di andi ay leer yoo xam ne day fenk ak sëlmal bu leer boo xam ne day leeral xolu képp kuy jàng xasida gi te mbokk yi ab xol bu leeree rek nit ki mën a egg ci boroomam subhaanahu wa taala moo tax amoon na benn boroom xam-xam boo xam ne dafay gisoon ci ak njabootam koo xam ne dafay dox jëm ci yàlla dox biir bu mu ko gisee mu yem ko lool mu gëstu ay mbiram waaye bu ñu ko gestoo dañ koo xamal ne kii kat day jàng xasida ak nuuru daaray ni kon loolu bokk na ci njëriñul xasida gi di nuuru daaray ni sëriñ bi wax ci biir ne wajaxal madaihi lahu wassalawaat fawqal ibadaati maham wa dahawaat ba sunu borom maa ngi lay ñaan nga defal ma xasida yi nga xam ne moom laay julli ci yonent bi ak xasiday tagg yi ñu feete kaw mboolem xeeti jaamu yàlla yi kon loolu it day wone màggaayu xasida gi nga xam ne mooy xasida nuuru daaray ni sëriñ bu wax ne nanga ma defar sama téere bii di nuuru daaray ni mu nekk téere boo xam ne day yóbbu nit ki ci na day yóbbu nit ki ci aljanna waaye di leeral xol tamit comme ni ma ko waxee ci ginnaaw wajhal kitaabatiya lil jinaani tan muniratan janaani kon jàng xasida nuuru daare ni day tax nit ki am xol bu leera a leer a leer ba tey sëriñ bi mi ngi fi wax ne wajhal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa xalbi arsida dafa ñaan yàlla foofu ngir xasida yi ngir xasida gi nekk rashid mu nekk xasida boo xam ne xasida bu jub lay doon waaye taxaw taxawaayu mursid euh, nekk loo xamante ne day jubale di wane yoon bu baax rashid mooy koo xamante ne dafa jub focc tege ci yoon wi suñu borom subhanahu wa taala bëgg ab jaamam tege ci boo ko defee nag ci ngay soog a nekk mursid mooy di jubale nag di wane yoon bu baax mu ne na xasida gi taxaw taxawaay boobu ci mbiri taalibe yi bokk na ci ñaan yi nga xamante ne sëriñ bi ñaan na ko ci biir xasida gi li muy wax ne wajal xurufaha busharatan tunwir xalba lazi biha yusalli yaa munir yàlla na nga def arafi xasida gi di nuura daare mi mu nekk ay mbégte yoo xam ne day leeral xolu képp koo xam ne moo ngi jàng xasida gi te wax naa léegi ne xol bu leeral rek nit ki mën a egg ci boroomam mu wax ci biir na war fan liman biha yusalli zikra wajbur lahul xaatira wasrah sadra képp koo xamante ne mu ngi jàng xasida gi nuuru daari ni yow yàlla nang nga ko yëkkitil aw turam waaye na nga ko dalalal am xelam te leeralal ko ab dënnam moom xasida gi nga xam ne mooy nuuru daari ni ba tey mu nekk xasida goo xam ne xasida gu yàlla نعولا باي خاسي دبو يالا بارك الله خاسي دبو يالا مقال وجهلته الحروفة المقدمة مقبولة بركة معظمة أمن فهم نصح دفوهن وجهل الحروف زائه المقدمة مقبولة مشكورة معظمة دولتي منك خاسي دبو خمني خاسي دبو غنيو سنتلا من خاسي دبو نور داريني كلا سرين تبا وخينا يو يالا دفل من خاسي دبو mu taxaw taxawaayu bépp yonente boo xamante ne nii mos nga koo yónni nga xamante ne na yonante yi daan defaree euh, seenu xeet di leen won yoon wu jëm ci yàlla sun borom subhanahu tax taala nii la xasida gi di defaree ki nga xamante ne moo tax ko ak moom tey sellal ndax sëriñ bi dafa wax ne wajal kitaabati ka kulli mursali yaa man wahabtali ujura rusuli kon loolu bokk na ci ay ngëneelu xasida gi nga xam ne mooy xasida ak nuuru daare ni sëriñ bi wax ci biir ne wajaal xurufa zaihi nizaama jaalibatan ilal munal izama yàlla na nga def arafi xasida gi muy xicc di jëme ci xiiwal yu màgge ya nga xam ne jàng ko day tax day joxe xiiwal sëriñ Saalif Mbàkke radiallahu anhu wax nañ ne wax na ne at mi sëriñ Tuubaa taalif xasida gi at moomu xiiwal ya bari na lool ci njaareem kon loolu bokk na ci ngëneelu xasida gi nga xam ne mooy xasida nuuru mu nekk xasida goo xam ne soo koy jàng yaa ngi bëggal yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam soo koy jàng yaa ngi bëggal yonent bi te ab yonent nag képp koo xamante ne sax nga ci di ko bëgg di ko bëggal euh, li ngay sàkku ci suñu borom subhanahu wa taala mën nga koo am ndax bëggal yonente mooy bëggal suñu borom subhanahu wa taala màggal ab yonente mooy màggal suñu borom te sëriñ bi wax na ne waa wajal kitaabati busharatin tadum lil muntaxal lazi lahu sirtul xadim na nga def xasida gi mu nekk ay mbegte yu sax dàkk ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam mi nga xam ne mujj naa doon ab liggéeykatam man Serigne Touba mu làmboo itam mbegte mboolem malaaka yi moom xasida gi soo koy jàng yaa ngi bégal yonente bi waaye yaa ngi bégal mboolem malaaka yi sunu borom yi subhanahu wa taala wajaxal bihi xatti sururan abada li jumlatil amlaaki yaa man ubida mu nekk xasida goo xamante ni itam gaaw na lool ci joxe ngërëmal sunu boroom subhaanahu wa ndax bari na ci biir xasida gi ay bayit yoo xam ne sëriñ bi def ciy ñaan yàlla ngir xasida yi nekk ngërëm lu gën a màgg ci moom bokk na ci li mu wax ne wajaxal bihi xatiya rabbi indaka akbar ridwanin wa inda jundika yàlla na ma defal sama xasida gi di nuuru daaray ni mu nekk ngërëm lu gën a màgg ci yow mu nekk ngërëm lu gën a màgg ci yow kon jàng xasida ak nuuru daaray ni day joxe ngeureumal suñu borom subhanahu wa taala li gëna mag ba mu na ko ay yoon ndax waxat na ci biir ne wajhal makatibi ladayka ya jamil ahla laa fa anka la tamil da nga def samay mbind muy ngeureum lu gëna mag ci yow yow suñu borom subhanahu wa taala wajhal bijahihi alazim l ahla xattiya ah laa ridaaka xad araxtamatiya wajaxal bihi ridaaka yaa man raditu anhu is ardaka kon loolu day wane ne xasida ak nuuru daara ni day joxe ngërëmal sunu borom subhanahu wa taala ngërëmal yàlla nag nekk loo xam ne comme ni ko borom xam-xam yi di waxee aljanna la muy neex neex ak la muy màgg-màgg ngërëmal sunu borom subhanahu wa taala moo ko gën a kawe Euh, ni ko alxuraanu karim waxee te sëriñ bi wax na ne xasida yi kat ci la amee ngërëmal suñu borom lu gën a màgg ci xasida yi madxu nabiyul muntaxa lii jalaba bila azan dan fan jalaba mu nekk xasida guñ nangu nangu gi suñu borom nangu xasida gi dafa feeñ lool ci biir xasida gi ndax da ngay gis ay bayit yoo xam ne sëriñ bi dafa am lu mu ciy ñaan yàlla te bu demee tuuti xamle na lu mu doon ñaan suñu borom subhaanahu wa taala nangul na ko ko waltajzi ahla badrinil kirama hanniya xayran xud liyal marama dafa ñaan yàlla foofu ne ko nanga ma fayal waa badrin te may ma li bëgg man Serigne Touba dem tuuti ne wal hanni jundakal kirama xayran kasiran xudtalil marama xudtalil marama mooy li mu doon ñaan yàlla defal na ko ko fu muy waxee ne wa allimil aada anni indaka la indahum bisharatan li jundika yow yàlla na nga xamal noon yi ne ماك يو لا يو لا كو سيخال واي سيخ ماكو نيوم ديم بام ياغ مو خام لا ني علمت الاعداء اني عندك لا عندهم بشاره لي نوني خام نانيو ني يو لا كو سيخال واي سيخ ماكو نيوم كون لولو بوكو ناتي نانغو جيغا خام ني سون بوروم نانغول نكو سيرين بي تي خاسيده يي تي خاسيده غي مو فاج لول تي بير امنا فو خام ني دا فا واخ ني وليهب ما لا يرى لغيري في الله وذكر واذن خيري dafa ñaan yàlla foofu ngir mu may ko ci ci moom dafa ñaan yàlla foofu ngir mu may ko ci moom ak ci alquran ak ci yonent bi loo xam ne ku dul moom du ko am dem ba mu yàgg mu ne kaw wanta wantali maa laa yura li xayri fii ka wa fi alquran lqurani fi lxayri wa fi nabiyika wa hamdika rasul man li bihi tuusilu min ka xay rasul dafa xam le foofu ne lam doon ñaan fële yàlla nangul na ko ko moo tax mu ne may nga ma ci yow ak ci yonent bi ak ci alquranu karim loo xam ne ku dul man mësuloo ko am nangu googu mbok yi feñ na lol ci bir xasida gi amna na fu mu waxee ne wa indaka jaal nii asna dem bam yag mune ya man ja'altani ya man ja'altani khadiman asna di war ne itam lam doon ñaan fele sunu borom subhanahu wa taala nangul nako ko batay so tey ci bir amna na fu muy waxee ne xaqiq li rajaa xaqiq li rajaa fi tarki wa fi akhzi bila naqdin wala muxawafi dañaan yàlla fofu ngir mu dëggalal ko yaakaaram dem tuuti xam leen ne eh, yaakaar gum doon ñaan suñu borom dëggalal na ko ko moo tax mu wax ne xaqaqta li rajaa yaa karimu yaa man ladayhi kullu ma arumu mu mel ni nangu googu sax dañoo defe sëñ bi dafa dem ba ay jëmmi jamono mu gën a gaaw ndax dañuy gis muy ñaan suñu borom loo xamante ne bay ci bayit bu ca topp rek ci lay xamle na la mu doon ñaan yàlla nangul na ko ko lu mel ni lu muy wax ne wam xubihi xasdal laxa li xatti yaa man maxa maxa yaa man maxa maxa ibi bil xatti yàlla na nga fegal sama mbind lépp luy neen na nga fegal sama mbind ci lépp luy ay neen fasaasa mu ne ma xawta an yax sida xattiyal laxa yaa man wi daa di li nabi ba lixa yàlla fegal nga sama mbind euh, lépp luy neen kon xasida ak nuuru daare xasida la goo xam ne làmboo na ay ngeneel yu rëy rëy yoo xamante ne jar nañu di ko jàng bu baax a baax te di ci góorgóorlu xasida ak julli la julli ci yonente bi waaye làmboo na itam zikar maanaam sant yàlla ndax sëriñ bi andi na ci baatub sant lu toll ci juróom-ñaar fukki yoon baatub sant ñëw na ci biir xasida gi lu toll ci juróom-ñaar fukki yoon soo demee ca ca biir da nga gis muy wax ne la kasukuriya euh, bila kufraani يا يا من حماني عن الخسران لك شكوري بلا كفران يا من حماني عن الخسران dem ba mu yàgg mu ne laka sukuriya ala taxribi yaa maahiyal udwaan wa taxribi la ko tàmbalee ci laka sukuriya bi laa kufraani ba ci laka sukuriya ala taxribi loolu fukki bayit ak ñaar la yoo xam ne benn bu ci nekk mu ngi ko tàmbalee ci laka sukuriya waaye foofu mu ngi ciy junj mu ngi ciy jublu mu ngi ciy jublu fukki weer yi ak ñaar yi moo tax ba mu jeexee mu ne ko laka sukuri rabbi min muharrami li xatmi zil xijjati xatmil mi yow yàlla samay cant ñeel na la li ko tàmbalee ci muharram ba ci tabaski mooy weer wu njëkk ba ci fukkeelu weer wi ak ñaar naka noonu itam ba mu jeexee mu teg ci juróom-ñaari sakkartukal laahuma juróom-ñaari sakkarta sakkartukal laahuma yooyu mu ngi ciy jublu juróom-ñaari bés yi mu tàmbalee ko ci sakkartukal laahuma bis sukuuni yaa munzilan li xaada bi taskiini ba ca sakartuka allahuma bil midaadi yaa waahiban li yaa waahiban li nusri wal widaadi loolu itam bu mu jeexee mu teg ci laka sukuuri alal ayaami yaazal muxaalafati wal xiyaami moo tax bu mu jeexee mu ne yow yàlla ñeen na la samay cant ci mbooleem fan yi kon xasida la goo xam ne làmboo na julli ci yonente bi waaye làmboo na itam sant yàlla sun borom subhaanahu wa taala kon su ko defee ñu yemandi foofu ba beneen yoon incha allah di sant di leen gërëm di ñaan yàlla mu defal ñu dégg ak topp ba nga ne lii nga xam ne xasida gi làmboo na ko lépp suñu borom defal ñu ko ñun ñi nga xam ne ñoo koy def ak yéen ñi nga xam ne yéen a koy seetaan jërë ngeen jëf